Uh, uh, next one bi you know we gonna do it big because loolu lañ plan next one bi dafaa nekk comme Kabilo comme niñ ko dee ooyee so dafaa nekk town by town Bakaw Fajara New Town yëpp pour ñëpp ñu mun a play next bi dama ko organise rek pour ten teams waaye incha next one baa gën a big you know because soo capee affaire si dama doon ne propre nawetaan because ñëpp génn leen soo kontaan trop next one bi dina gën a big incha allah. mooy message pour ndaw ba xam nga suñ tournée wut because suñ nawetaan bi am na problème always so discipline bu ñu maintain fii you know team bu ko win you know ñu ah, comme discipline bi ñu continuer discipline bi ñu dem si nawetaan bi because loolu la ñu war a bakaw loolu la war a def so moo tax tournament bi ñu organise tournament bi so luñ fi def tournament bi ñu def ko si nawetaan bi you know nawetaan bi mun a ne Euh, thank you very much benteer itam ñu am kii ama euh, madame mooy euh, Showbiz tey yëg gis for the first time edition bi happen mu dem successful ñëpp génn si di sant yàlla bu bëri di fag daal sàkk nañ ko sa jàmm na sa jàmm no violence daal demee and this one were totally different xuloo amut xeex amut promote yëpp dem na si jee so kontaante rek kontaan and then di ko encourage pour giving back to the community dafa over important like foo jógee nit foo jógee ñoo laa mën a taxaw la ñoo laa wax ne comme ñoo laa mën a define daal so fact that just last week Friday yaa ngi gisoon mu ngi demoon di joxe paa yi joxe leen saako maalo saako sukur so tamit fàtte woon ndawaam yi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 test la woon daal foogoo ñoo ne it was gonna be this successful te foog mosuñoo foogoo ne sax comme nit ñi dañ doon bëree so moo tax like um, important noonu ngeen ngeen ñëw and media xam nga media it allows a lot so next year tamit I'm sure because moom already moom Lotto ñoo official sponsor bi te maa ko doon discuss ak gars yi pour ku doon um, for more sponsors next year balaa ñu doon balaa ñoo ñu su ma delloo rek naa ko propose ñu am more sponsors nga xam ne it will be daal te boobu duñ ko just focus on Newtown dañoo will go border comme mu ko waxee will